Euh, tenue scolaire yi dégg naa ci coow lu bari waaye euh, li ma ci wax mooy suñ ko dugaloon ci budget ministère artisanat kon wax ji du bari am na ñoo xam ne dañuy def amalgame ndax dañ naan woy ministère bi am na ay priorité ay table banc affaire euh, donc abri provisoire te duñu wax nit ñi ni muy table banc yi muy abri provisoire am na programme yoo xamante bi ay milliards la ñu ngi koy régler donc c'est comme si dañoo délaissé programme yooyu uniquement jëm ci jëm ci tenue scolaire te nag wax dëgg yàlla euh, dëkk di nga toppatoo njàng di nga toppatoo sport di nga toppatoo culture waaye di nga toppatoo artisanat ndax buñ ko dugg joxee tailleur yi ah tailleur Sénégal soxla nañ ko.

donc mais moyen secondaire bi bokku ci ce qui veut dire que les parents d'élèves école donne les parents d'élèves pour affaire tennis scolaire lolo montre la faire. d'ailleurs sax ci niveau élémentaire bi ay coopérative moo fa mais lolo vraiment affaire blouse de lañ ko ci maintenant moyen secondaire bi ñu rappeler ni arrêté ministre bi c'est entre 3000 francs et 10 000 francs mon ko

parce que ku am ku am ñetti doom yu jàng wala ñeenti doom yu jàng am na loo xam bu ko tegee dafay mujj metti